ko xaw ay communication haineux alors ro aussi ene euh, comme na ko na ko daal di jàppee parce que ñëw neen di menacer ñëw neen di waxé ak euh, yenn si euh, état bo xamni ken mënu ko comprendre peuple la ñuy waxal mais communication bi nga xamni sa tam yéen ngeen ko yow yow yow yow tu tu veux qu'il adopte quel type de communication la quel genre de communication population bi lañuy waxal quand même peuple le peuple lañuy waxal ñan lañ dënk réew mi le ministre de l'intérieur ci la bokk mais Sidiki Kaba bi ngay wax ci la bokk mais s'ils ne prennent pas les responsabilités fu ñu ismaël Ismaïla Fall waaw buñu responsabilité ñom fan lañ jëm ñun mais est-ce que nous fi est-ce que fi invité waat pour ñu toog il faut saluer les efforts qu'ils sont en train de faire pour maintenir la République Fallou si la République tombe nous allons tous tomber parce que doo fi toog di monter say micro di invité ay nit ñuy wax du amati on sera dans la loi du jungle le plus fort massacre le plus faible fofu ngeen vous ñu après des gens taxaw pour éviter loolu ngeen taxaw naan non ils sont arrogants non ce discours non loolu loolu loolu ngeen bëgg tay bu ku fi tok sa téléphone di wax di li c'est parce que nous sommes dans une république. si la république tombe on va tomber tous. donc japp ni la situation il est chaotique. non mais mais c'est mais c'est désolant. merci beaucoup c'est regrettable. merci beaucoup ce qui se passe. merci beaucoup ngeen bëgg léegi ñu bay loolu muy dem. merci beaucoup bu ñu génnee wax ñu né c'est arrogant non discours peuple. non mais si loolu le peuple que vous parlez là. mais si mais attention c'est quoi le peuple. c'est pas ces ces ces gens qui sont dans les rues et qui brûlent le pays mais le peuple mature nous tok sen kër continue continuer di liggéey yor sen carte électeur di xaar jour c'est ça le peuple sénégalais on est 17 millions de sénégalais c'est les 17 millions de sénégalais qui étaient dans les rues. mais il ne faut pas d'immatures d'immature ah, par rapport à mais il ne faut pas les il ne faut pas les il ne faut pas les qualifier des immatures. Ah, mais am y a des manifestants qui étaient sur dans les rues c'est des responsables. c'est des responsables Nous xamné pas ni ñu ngi manifestation amaana bu taxawé ñu né dañu taal auto am nañ ko doon opposé ñu bu leen taal auto yi bu leen yàq lii bu leen def lii mais ya a des manifestants responsables. su ma xam ne dinañ manifester te duñu yak waxu ñu ñu doon taal mais dinañ dinañ woné sen mais ñu doon manifester ñu doon manifester je dis bien ñu doon manifester. exactement euh, il ne faut pas les qualifier du mature qui les qualifie du mature. parce que da nga né ñu matu ñu ngi sen kër tok mané la le peuple mature ñu ngi tok sen kër yi yor sen carte di xaar waaw mais là on nous parle de 16 morts euh, euh, attends d'une centaine de blessés un seul un seul un euh, seul là aussi on nous parle de 16 arrestations une seule mais situation bi donc kaw fa chaotique sànq sans qu'il y ait confirmer déggoo li la donc mais comment comprendre une seule personne qui qui perd sa vie c'est déjà déchirant ok ok donc c'est grave waxuma la nag ngay compter ok donc comment comprendre ou waa Benno une mhm. cellule bi Nous là, c'est Macky Sall la nous tax ñu situation tollugul fo xam Macky Sall war na mën a génn. Mhm. maanaam euh, ñoom Pape Malick Ndour et tant d' autres. ñu ngi mhm. en di minimiser li nga xam nekk moo di situation actuelle. Pape Malick lu minimiser euh euh pour ne pas revenir li nga xam nekk moo sous les dire euh, son passage à Noumélan. Euh, ñu ngi mel parce que lan la wax Noumélan parce que ñu bari non lan la wax non non sinon duma ma. on a Pape hein. Malick Ndour lan la fa wax. euh bari neen bari neen ñi nga xamni tam ñoo nekk ci benn bokk yaakaar yéen nee na situation bi tollugul fo xamni président Macky Sall war na mën a tout le temps. Euh, que le bilan euh, bilan bi bilan bi euh, c'est qu'est-ce qu'il attend. est-ce mu communication de crise il va le faire le le le parce que aussi les familles des victimes besoin le dernier mot venant du président je te dis je te dis amul

su amee ñoo xam ne ni tey Sénégal bëgg a bëgg dugg si guuta boo xam ne ni démb ak barke démb nit ñi jaar nañ fi def nañ politique quitté nañ gis nga ñun ñi ñëpp dañ fiy jógee xam nga lan moo moo fi des le Sénégal le Sénégal il va toujours demeurer mais lu ñu war mooy ñu bàyyi république bu taxaw loolu moo ñu jig pour république bi taxaw nag il faut que ñi nga xam ne tey ñoo koy incarner Nous continuer de démontrer di montrer mais également euh, les efforts qu'ils sont en train de faire pour maintenir cette république C'est logique boobu rek lañ mais du dara si logique de rek lañ maintenir la république alors dinañu exactement si euh, condamnation bu ki nga xam Ousmane Sonko euh, corruption de la jeunesse c'est ce que ñi comprenons. comprendre loo beaucoup de bokk si charge contre Ousmane Sonko charge au départ yi lii la woon diggante gi nga viol menace de mort donc su ne tey bay wax li nga corruption de la jeunesse qu'est-ce qu'on va comprendre alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans la corruption de la jeunesse C'est-à-dire, que euh, les questions, les questions juridiques, justice, gérer. juridiques, la questions là, nous questions juridiques, les questions fi ngeen questions di layal Adji non du question ah, les donc ce que Les question layal Adji sénégalaise bi nga ay nit défendre comme ni nit ñi jógee défendre beneen nit. na hmm. problème bu amee force dina am ñu am c'est-à-dire ils sont comme ça dinañ défendre kii ñële dinañ défendre mais gis nga ñun ñëpp xamoon nañ ne moom di défense su Adji Sarr xamoon nañ ne ne wax wax ne wax. problème et le président avait dit même que personne ne yéen ñëpp si ni. am ñu si mosul wax. mais yéen ñëpp xamoon xamone nañ lan. sànq euh, ma si ma bàyyi la si nga wooyee si boobu de dossier. ma ñep xamone xamoon nañ ne mais tribunal lay jeexee fu mu xanaa doonee benn. cest dire c'est pas les débats de surface yu wax ci pencu yi tok di ko wax ci plateau yi man lan la man lu may wax lan la impacté situation bobu wala yow li nga si wax mais juge ñoy ñooy mënu ci wax dara luy impacté wala li changer décision wala li def non c'est des débats de surface mais xamone nañ ne en réalité que tribunal lay jeexee. mais ce que nekkul un procès politique mais ce que nekkul un procès politique toutes les informations qui a fait que aujourd'hui euh, mais est-ce que nekkoon benn procès politique. non mais procès ban procès. vu l'ulma bi. nan la déroulé bañu wara war li menace de ak viol bokkat aussi ñepp doon xar acquittement. mais kan mo wax lolu bokkat aussi le juge kooku il est politique. C'est mais pourquoi donc indépendant. donc pourquoi xaalis mais dama la laaj le juge est politique. donc pourquoi le pourquoi pas acquittement. lolu juge bi moko xam man man xamuma lolu di man je connais pas ça di pourquoi amul acquittement pourquoi ñu condamné man la la xam si lolu xaw ci dara di. Je me pose des questions, vous ne nii pas naa répondre mais ne mënuma si répondre à la place du juge je ne suis pas juge. donc ce serait préférable que son candidat soit acquitté définitivement. ce serait préférable mais ce ah, serait préférable pour yow. Euh, que euh, peut-être pour nous donner a tension parce que tension tout le monde nous na exactement ce serait préférable que Ousmane Sonko ñu définitivement. ce qui est préférable ce qui est préférable ce qui n'est pas préférable ak du man ak yow ñokoy trancher. xam nga ñun lan lañuy wax. mais quand il faut nous tenir en compte par rapport à tolluwaay c'est important tolluwaay réew mi kay ñëpp tenir si ñun ñëpp ñu ngi siy tenir en compte tolluwaay réew mi du moom la ñuy waxtaanee nii pour ñu xool nan la ñuy def pour jàmm am keneen ak keneen mu ngi feneen di ko waxtaanee pour jàmm am booy c' est dans la paix qu'on peut construire le Sénégal. Hmm. c' est dans la paix qu'on qu'on qu'on parle de développement c' est dans la paix qu'on qu'on qu'on qu'on qu'on qu'on s'améliore hmm. nga xam ne Sénégal fu mu nekk ak ak yoon yu mu nekk ñu war ko yëkkati ba mu vraiment euh, un rétroviseur par rapport aux autres pays du monde te te dynamique boobu la président C'est logique boobu la Macky Sall xam le président il a beaucoup fait pour ce pays xam ko. il faut le dire cest à pas parce que situation taxaw na ñu bëgg a fàtte li mu fi def non non non quelle que soit la situation personne ne le souhaite que nous nekk fu ñu toll nous ñun lu ñu bëgg mooy ñëpp développer ñëpp nekk si jàmm loolu moo ñu jig te si loolu la ñu te Macky Sall bëgg Sénégal développé moo gën bëgg nit ñi si parce que loolu ndamam la mais ndabu bépp sénégalais la et ñun ça doit être notre préoccupation aujourd'hui de bâtir le Sénégal sur les rails de l'émergence de maintenir la République c'est-à-dire xam nga lan moo ñu jàpp ñun sénégalais parce que attention des fois c'est c'est bien d'interroger l'histoire des pays limitrophes yi nga xam ne ils ont connu des guerres mm. nga manger tout tudd Angola des années 70 plus de 900 000 personnes ñoo si dee nga mën wax Mozambique des millions de personnes ñoo si dee nga wax le génocide rwandais ñaata nit ñoo aussi faatu ba Congo ñaata nit ñoo aussi des Mali tay nga dem Burkina Guinée Conakry tay tous les pays limitrophes du Sénégal sont en danger et ñom lu ñu bëggoon parce que tous les pays yi nga xamné ni pétrole amna gaz amnafa, c'est des pays qui vivent de tension parce que lan la l'étranger lu muy bëgg d'abord semer la terreur nit ñi kenn du talati kenn ku si ne fi ngay sauver sa bakkan moo lay ñor. mooy fausse occulté ñëw gérer seen i affaire mooy fausse occulté attention gis nga le sénégalais n'a pas n'a jamais été. mooy fausse occulté personne une personne une personne ingrate wala mauvaise wala ñëpp xam nañ ne Sénégal lu koy collé mooy lan pays de la teranga mais quand on parle de pays de la teranga c'est c'est les hommes c'est les femmes parce que c'est des personnes bien qui ont reçu des valeurs archaïque et ancestral yo xamné mi de grands hommes inculqués. inculqué nga que ça soit les chefs religieux que ça soit des des personnes yi nga été. ni tay ñu ngi politique mais ils hmm. ont laissé quand même des valeurs sûres des valeurs fondamentales tout jeune doit s'armer pour devenir un homme que le peuple respectera mais pour cela nañu bàyyiwaat xel si sunu enseignement yi nga xam ne ni tey mooy l'éducation de mm. base. Mm. nañu xoolaat sunuy comportement. mais tu fais référence euh, euh, alors donc tu fais référence au au euh, à vos à vos forces de culture yi nga xam ne itam yaa ngi koy. wax que ni dañoo bëgg a ñëw pour semer li nga xam ne que. la terreur la terreur rien de plus. mais parce que ñoom fa la ñu ñoom foofu la ñu réussir. mais Cheikhou ñu ngi gis si terrain bi Cheikhou.